dal leen ak jam ci li yéen kay xëy gën tey ci jamono ji nga xam ne ji àdduna wërngal kap mi ngi doon màggal ni kii démb journée internationale bu aviation civile jamono jooju leen la réew bu Sénégal la doon ubbi aéroport bu bees di aéroport international bu ñu duppee Blaise Diagne ca diwaan bu Diass président Macky Sall ak lu ci yeneen ñetti njiitu réew yoo xam ne bàyyi ko nañ ci sous bi ñoom ñëpp teewee nañu lu bi doon amal ki démb bokk na ci njiitu réew yooyu lay Rewmi ko tijjee ne Ali Bongo Ondimba njiitu réew bu Gabon Adama Barrow njiitu réew bu Gambie José Mario Vaz Diaz njiitu réew bu Guinée Bissau Patrice Emery Trovoda moom itam bokkoon ci ñi teewoon ci inauguration ni ki démb ak kilifa yu mag yu réew bu Sénégal ak yu béykat ca bitim réew ñoom ñëpp teewee ubbite gi ni ki démb moom président Macky Sall gannaaw bu mu ñëwaatee dëgg-dëgg ci delloo njukkal gi xam ne gi delloo na njukkal mboolem ñi nga xam ne ñi ay njiitu réew la ñu woon lan jaar ci réew bu Sénégal kenn ku ne la nga liggéey jare ko ci Léopold Sédar Senghor Abdou Diop ba ci maître Abdoulaye Wade moom président Macky Sall le donte ne maître Abdoulaye Wade moo teg xer wi waaye moom ci boppam fexe na ba indi ci ay joynte waxtaan ak ay partenaire ba tey ji ñu taxawal aéroport bi ni mel moom président Macky Sall ne aéroport bi lee dafa bëgg nag ñu toppatoo ko dëgg-dëgg ngir ay débé bi mën a jural comme bu am solo réew bu Sénégal rax ca dolli moom président Macky Sall tamit wàllu kaaraange tamit faw ñu dooleel ko ak juróomi aéroport yi ci Sénégal tamit danañu fexe ba gën ko yeesalaat président Macky Ah, danañu fexe tamit ba daal di koy jagleel ñaari Airbus yoo xam ni A330 neo lay doon moom président Macky Sall ci yéen cabinet l'aéroport bu bees bi ni mel nag l'aéroport la boo xam ne bi réew Sénégal ci boppam moo ko moom rek ci dolli moom président Macky Sall ne donte coow li bëri na lool waaye buñu demee ba atte jot askanu sunu ci boppam ñooy atte ak ci mën di doon lu président Macky Sall ne dina fa fukki at yàggoon na lool waaye tey jii li nekkoon ay gént ci askanu bëree bëri def na ci ko boole ci xam ne kii daanaka ko sax ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon mooy maître Abdoulaye Wade ma maître Abdoulaye Wade yéen i cabinet moom fekk na ko bitim réew waaye aw turam feeñoon na fa lool donte ne aw turam ña ngi ko waaye moom président Macky Sall li leer bu daal mooy maître Abdoulaye Wade moo door liggéey bi teg aw xeeram waaye moom ci boppam moo waxtaan indi ci ay jonte ba tey jële aéroport bi ñu gis ko fi lettre bi ne kay wax ji kay dañ koy rafetal dong waaye bu ñu xoolee ba xool président Macky Sall ni mu tax démb kàddu yi mu daal di yëkkati du lenn lu may faase na maître Abdoulaye Wade ci li nga xam ne li amoon na ko mébét ci l'aéroport bi ni mel Ousmane Tanor Dieng bu parti socialiste ak Moustapha Niass bu AFP ñoom ñaar ñi yéen kaay bi daanaka bu ñu doon xool ci taxawaay bi nga xam ne amoon nañ ko ci mbirum éléphant blanc bu maître Abdoulaye Wade ak ñoom seen ba noppi lekkat ko mi quotidien ak lu ci mën di dollule donte ne ubbi nañu aéroport bu bees waaye réewum Sénégal la liy jafe-jafe bi ci boppam mooy ne réew mi lépp a jafe daanaka lépp a cher réew mi quotidien ne ku weddi li mel duggal ci restaurant yi nga dugg ci hôtel yi dugg ci woto yi wala sax nga dugg ci yenn makkaan daanaka lépp loo fa laal ngir jënd ko rek day cher lool Rewmi Quotidien Khalifa Ababacar Sall moom bu ñu moyul état bu Sénégal dana ko lànkal lu jëm ci question bi xam ne bi ay awakam ak i jegeñaaleem déposé nañ ko ngir ñu béy ko béyam lay gëndiko état bu Sénégal yéen i ci tànk yooyu la la nekk libération yéen i kaay ñëw bu mairie bu Ndakaaru ak li ñu jox moo taxi te yéen i kaay bi ne Khalifa Sall toll yi yéex moo ci nekk waaye bu ñu mooy ca correctionnel ngir taxawal ko ci kanam atte ko li ñu joxe ñi baram tuuma rek la ñuy wàcc stade yéen ne atte nañu ni kii démb ba tabb ki xam ne moo juróomeelu yoon ballon d'or yéen i cabinet Ronaldo la bu dee doomu Sénégal bi moom di Sadio ci lu jëm ci Ballon d'Or 2017 bokk na ci ñaar fukk ak ñetti sóor ya gën a xarañ ci àdduna bi yëpp moom Sadio Mané yéen i cabinet moo jiitu Benjamin Falcao ak Coutinho